ñi nga xamante ne dañ doon taxaw naan c'est un projet politique man loolu laa jàppoon te bi fi may wax yow nii loolu laa gëm ndax li ma dégg tey ci biir projet bi ak la ma doon wax méngoo na en tant que koo xam ne kilifa diine nga nit nag nit da nga mën a doon ndax dégg naa ñaar ñëpp kenn ku nekk wax. xanaa li nga xam moom lañ si déploré mooy wax ju ñaaw ji nga xam dégg nañ ko ci acteur Adji Sarr ni mu ko waxeek ni mu ko doon defeek fi mu jaar ak yooyu dañuy ñaawlu yenn kàddu yi mais xam nga c'est un boo xam ne dafay am kenn ku nekk am nga sañ-sañu xëy na wax loo xamante ni bu fekkee nit ki da koy metti wala mu bañ a ñëw lu mel noonu rek war naa tax nit bañ a ñëw parce que li ma dégg nii ab jullit wala ñu ku baax wóorul taxaw ñu naan ko yaaru def li waaye yaayam def waaye la ma doon wax ba bi di fay ni procès bi ma gis amut viol loolu laay maintenir parce que diine moo ma sant loolu te li ma dégg méngoo naa li ma doon wax je vous